ci kon euh, euh, euh, pa kii papa da may jox réew mi quotidien bu ko defee ñu xool réew mi quotidien lan la xëy fësal la banlieue au rythme Euh, du euh, safar non le ko quotidien euh, titré nga xam tay safar gi ñu ngi koy ñu ngi koy amal ci dekk yi diko amal partout ci rewmi ba ci sa Europe ñu ngi fay magal safar weru safar ba nga xam mu ngi mhm. la banlieue rythme au safar noonu le ko titré ci safar Sëñ Mohamed mu melni safar gi mom kenn ku nek ci xétu berndé Euh, yaa ngi koy ci xeetu euh, euh, joxe ñam. Uh-huh. di ko def ci biir réew mi ah, di ko def également ci ci biti réew. loolu réew mi quotidien yéenekaay moom moo ci da bool daal ci ñëw moo ci daal di ñëw. exclusive moom Alaaji Mamadou Ndione dafa ñëw mm-hmm. nekk ci. le euh, trafic euh, de passeports diplomatiques, euh, bi nga xamne tay moy mooy ci diggante Kilifeu ak Simon mm. bi nga xamne ne jamono jot nañ leen jot nañ leen tegg loxo di xaarand ak seenuk exclusive yéen kaay dina ci ñëw laalaal également ci douzième législature di assemblée nationale ci ñaari député elage Hadj Mamadou Ndione yi mm-hmm. nga xamne tuddu nañ leen ci muy Sall ak Biaye mi nga xamne donc tudd nañ leen ci euh, euh, trafic de passeport diplomatique boobu euh, nga xam ne jamono ji ñu bari ñu ngi ci wax gis nga yéenekaay bi excluse moo ci moo ci daal di ñëw dellu ci ci taxawaay bi nga xam ne xëy na assemblée nationale war na ko am ci ci ci réew mi ñu fàttaliku discours discours bu mam Abdou Aziz Sy nga xamné ñu ngi mhm. ko doon fàttaliku rek ci le 14 septembre septembre 2021 nga xamné mom mhm. amone discours bu am solo bo xamné defon nako sa suné bu xew-xew amé rek mhm. rawati na mu nek assemblée nationale dañu koy wat euh, euh mu melni da mel ni dafay dafay dafay dafay bees saa su ne euh, sëñ Mohamed euh, ci walu walu discours ndax tay euh discours yi nga xamné les xalif généraux dañu koy def Euh, nga xam ne heure bu ñu ko andiwaatee rek dafay. dafay dafay nekk dafay mhm. méngoo ak li nga xam ne moom moo di actualité mhm. euh, ñu ràññee ci rek discours bu euh, kii maam. maam Abdou Aziz si Dabakh nga xam ne mhm. ñu ngi ko doon fàttaliku ci le 14 septembre. 2000 2021 Exclusive Yéenekaay également ñëw na ci loolu Exclu ñu ñëw ci Direct News. ñëw nag ci kaddu ki nga xam ne rek moom moo di leader bu ànd jëf PADS. Euh, di Mamadou Diop de Croix dellusi euh, nag na ci euh, tolluwaayu réew mi ak li nga xam direct ñëw ci ne ko histoire du nouvel hôpital de Touba Mohamedou Hadim les vérités des faits noné la ci direct news yi ci hôpital bi nga xam ñu ko doon inauguré ci njiitu réew président Macky Sall amaloon ko le soleil yéenekaay ñëw na nak ci. Euh, euh, Covid 19. Euh, mhm. Sëñ Mohamed dañoo toll ci jamonoy mbas. Mhm. Mhm. nga xam ne tey Serigne Mountakha Mbacké wane na ci exemple. ci Touba. Euh, ci euh, tak maski mais également jappelé bi nga xamné jappelé nako ci euh, ci ñi nga xamné tay mom modi askanu dégager mom mo ñëk guen enveloppe tol ci 200 millions jaglal ko état du Sénégal pour ñu dugal ko ci fonds force Covid 19. Soleil yene kay nak mu ngi xamal né xeyna na gi ñu doon am ci ci mbass mi jamono ji ñaari fan mhm. ñetti fan yu génn gis nañu né mbass mi xawna na wàññeeku lool ci cas de contamination yi nga xamné ne El Hadj Mamadou mhm. ne ñu bari dañoo titone xeyna bu magal gi ñëwé kay mhm. da fay explosé explosé mhm. waaye euh, soleil yéene kaay mu ngi fësal ne mhm. euh, fi mu ne nii euh, kaay ci covid 19 El Hadji Mamadou Dione mu ngi mu ngi wàññeeku saa su ne tout à fait Ahmadou Bamba coronavirus bi déjà sax nekkatul ci rampe de l'actualité maanaam mhm. niñ ko daan ragale partout à travers le Sénégal Thiès ak yeneen dëkk yi ni ñu daan fonkee takku masque yi Euh, gis nañ ne loolu wàññeeku na waaye nag aussi ñaan yi ci lañ ci la mm-hmm. bokk mm-hmm. ndax euh, ba mu taree lool ba tar mm-hmm. euh, bésub xasidaya Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké xalif général daal di ko daal di woote a ah, mu daal di def ñaan depuis booba ba léegi nag ah, ku nekk xam na ne depuis boobu ba léegi xel yaa ngi ah, dal affaire du wàcc léegi fu mu tool nii daal jàpp naa ne compteur zéro ca la ñu su ñu su demee compteur compteur zéro wane ne mbir mi jóge na ci Sénégal nag ñu ngi koy xaarandi te leer na ma ne wala biir na ma ne loolu dinañ ci egg bu soobee Yàlla am na ñu ma doon dégg sax ci <laughs> euh, ci réseaux sociaux yi ñu naan hmm. euh, euh, corona invité nañ ko mu ñëw mu ñëw <laughs> mu ñëw màggal si Aziz Mohamed <laughs> ndax si mu taxaa jaamu suñu borom la jaamu suñu borom jaamu jaamu yàlla la kem ni mu nekkee jaamu yàlla uh-huh. maanaam jarul lu ñu siy tiit lu ñu si ragal mukk nattub suñu borom la te uh-huh. heure bu ko soobee rek la koy ci suñu borom dindi mm-hmm. bu ko defee rek ñu gën a sàmmanteek Euh, digle kër euh, docteur yi euh, ndax bokk na ci exemple bi nga xam ne Cheikh Cyril Mokhtar Euh, Serigne Mountakha Mbacké Bachirou xalif mhm. général des Mourides woné nako ci mhm. euh, ni nga xamné rek euh, noné lañu ñu war diglé kër docteur mhm. ngir andando xeex li nga xamné ne modi moo Covid 19 observateur yéen kaay dafa ñew nak ci les dessous politiques de l'affaire Biaye ak ki di Sall modi di passeport diplomatique yi nga xamné ne xew ci assemblée nationale ñu tuddu ci nak ñaari député boobe ba léegi nag déglooguñ len ci jamono jojo nak ki nga xamné modi euh, Simon Bouyanamar Y'en a ak euh, ki nga xam rek euh, mom modi kilifa jamono ji na loxo les dessous politiques de l'affaire bi et Sall non loko yene kay bi de observateur titré donc ci xëtam bu njëkk ñu ñëw ci enquête kay péril sur la Euh, vie privée euh, bi nga xam ne donc euh, yéenekaay bi ñëw na ci mel ni. dafa mhm. taxaw ci benn article si Mohamed ci nit ñi ni nga xam ne noonu la ñuy wuññee sutura doomu aadama yi. Mhm. nga xam ne tey da ngay seq ak sa nawle ngeen nekk ay xarit. Mhm. nekk ay dëkkandoo. Euh, seq lu bare bare bare bari ndekete boobu yëpp mu ngi lay pexeel ay pexe yoo xam ne daanaka euh, bés bu ko génne dafay dafay jéggi dayoo feeñ na ci euh, mhm. coowal passeport diplomatique yi ak kilifa ak bi nga vidéo bi nga xam ne donc dañ ko filmer mhm. te ñu wax nañu ki ko filmer xaritam la <coughs> mu di ceer def naag moom lu tolloog ñaar fukki at yéen kaay bii di enquête nag dafay ñëw ci relation yi nga xam ne doon am ci doomu aadama yi te jamono jii mu mel ni kenn ku nekk yaa ngi fexe noo gàllankoore sa sa moroomu doomu aadama mhm. euh, ci euh, li nga xamne donc mom modi di euh, di wuññi ay suuturam yene kay bi di enquête mom mo ci dal di ñew alerte quotidien kay infrastructure hospitalière après Touba Macky Sall annonce des hôpitaux à Tivaouane Mbour et Saint-Louis yene kay bi di alerte quotidien Aladji Mamadou Dione melni ni wàllu wër gi yaram président Macky Sall mu ngi ci def priorité ci yi nga xam ne donc annoncé nako ci bi muy inaugurer hôpital bi fi waaw euh, ci Touba Mbaké mu ngi fësal ne sax xëy euh, loolu ci euh, modernisation des des villes des cités religieuses noné lako ko annoncé nañ ben Tiwawon annoncé nañ Ben Mbour également mm-hmm. annoncé nañ ben Saint-Louis El Hadji Mamadou tout à fait loolu aussi Amadou su àddina du jox da ngay ànd mom mm. euh, parfois Euh, Sëriñ Basiru parfois damay dégg nit ñi ñu naan mm. euh, lii du priorité mm-hmm. ah kay mm-hmm. am na lu bëri loo xam ne priorité la mm-hmm. ñun bu ñu jàppee suñu bopp ne Euh, tubaab moo war a am lii mm-hmm. ñun waruñoo am lii mm-hmm. ba tax na euh, lu ñu jëmmal rek gars yi am lañ ca wax ne mm-hmm. lii du priorité xam nga déjà hôpitalu Touba yi sax ñu ngi cay wax wax ju ndaw loo xam ne euh, hôpital bi nekk Touba paralysé paralysé côté Kébémer yeneen yeneen gox-goxaan yi dinañ mën a ñëw te hôpital bi nekk na niveau bu jéggi dayo niveau bu mag loolu kay soo ko amee ci réew nen lu am solo la ndax wér-gu-yaram dafa yitteel ñëpp kon nag euh, li nga xam ne njiitu réew bi def na ko ci li jëm ci wàllu infrastructure sanitaire yooyu euh, ñun nag dañ koy saluer mm-hmm. ndax wér yaram mooy tax ba nit ku nekk mën a tal leneen te hôpitaux yi suñ ci suñu amuloon ci dëkk xanaa ña ña ca ña ca dëkk dee duñu du ñu xarab bu euh, hôpitaux ya mm-hmm. ña nga xam ne nag ñoo ca dë dëkkul mm-hmm. sori ko lool du ñu xam réalité ya nga xam ne ñoo am ci yeneen réew ya nga xam ne foofa la ñu jëmmal hôpitaux yooyu en tout cas daal dañuy saluer initiative bi ndax wér yaram dafa am solo lool Ahmadou Bamba football yi. jërëjëf El Hadj euh, Mamadou Ndione turbine yéen kaay nga may jox Mouhamed mbay euh, ñu ngi koy nuyu diwaanu Thiès. Ah. Mouhamed mu ngi <laughs> sama waa ji. lourdo bi moom xam nga sama sama sama xarit la Mouhamed Mbaye. ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax turbine kaay <laughs> euh, dafa ñëw nag ci li nga xam ne moo di Euh, li ma doon wax sànq mu jëm ci yenn vidéo yi nga xam ne mm-hmm. euh, nit ki da ngay seq moom Bachirou mm-hmm. euh, ñu nekk ay xarit mm-hmm. bu ñu toogee di waxtaan nga may nga may nga may enregistré uh-huh. nga may nga may vidéo ci loo xam ne du ma ko du ma ko yëg la nga ca jublu rek mooy yàq ma ci li nga xam donc moom moo di réseau mel ni ndaw ñi ñu ci bare bari jamono ji ñu ngi yàqante

ànd ak nit ki mhm. ngeen nekk ay xarit mhm. nekk ay doomu ndey mu xamal la sa biir xamal la ci biti mhm. euh, un bon jour rek xëy na euh, euh, opportunité àdduna tax mu fexeel la ci ay vidéo wala enregistré la xëy un bon jour rek tas ko ci réseaux sociaux yi mel ni phénomène boobu dafay continuer jamono ji di xew ci li nga xam ne moo di réseaux ci ñu ko bari ñu koy def moom moo di moom moo di ndaw ñi lu doy waar la loo xamante ni vraiment du jikko ju rafet ndax bokkul ci biir bokkul ci teggin ndax moom buñ ci génnee sutura rek dara desut ci moom tey dafa am loo ci ni moom moom jikko ju doy waar la ci nit. mooy mhm. muy muy koo seqal dara rek. di ko wala uh, wane ko. Mhm. loolu moom sutura moom amul foofu te su borom uh, ku bëgg yàlla suturaal rek du sutura doomu aadama. Mhm. te te te loolu lépp nag li ko waral mooy jikko yi jikko yi jikko yi jikko yi doomu aadama yi ñoo ñoo soppeeku ndax doomu aadama moom bu bu ci yar génnee éducation ba war defuñu ko ci moom éducation de base bi war defuñu ko ci moom. lu lu ne mën na ko def ndax doomu aadama kat eh, bul fàtte ne suñu borom eh, teral na ko ba mu kawee waaye nag mën naa wàcc boom ba gën a suufe mbaam foofu ndax doomu nekk suñu borom teral na ko ba mu ba ba fu ba mu mën a gën a kawe malaaka mhm. waaye doomu aadama mën naa wàcc boppam nag ba gën a suufe sax rabo rabu rabu mhm. kon nag doomu aadama bu nekk nit moom buñ ko yarul rek lu ne man na ko def waaw bu mu éducation amul ak yàlla amul amul sax eh, amul amul vie vie bu normal mhm. kooku moom lu ne sañ na ko def ci kaw suuf moo tax nag kon nag comme demee noonu ku nekk di di bàyyi xel sa bopp di ji xam ña ngay seqal lu bëri ci àddina ndax jamono ji doy na waar ba eh, kenn xamul kenn daal ci gàttal. tout à fait waaye nag ñi baax ba léegi ñu ngi baax ñi daan ñi am sutura ba léegi ñu am sutura. waaw kon nag loolu moom vraiment lu ñuy déplorer la loo xamante ni euh, jikko ju doy waar la joo xamante ni ku nekk rek war war na ko moytu. te loolu ndaw ñu bari ñoom ñoo koy def ci. doy na waar doy na waar ñoom ñoom ci sax ñoo ne ci internet bi. wuñu wuñu si taxawaat te ñu ci mhm. bëri dañ ciy def léegi ngir chantage la sax. chantage rek waaw chantage ngir ngir ne seex nga ñoom dara. ëllëg ñoom sa benn photo privée boo xamante ni bëggu mu siiw léegi ñu ne la boo ma jox ma nangam rek da da da photo bi ma ko siiwal bu ko defee yow bu fekkee ne da ngaa da ngaa da ngaa da ngaa nekk ab kilifa adduna waaw jaayante uh-huh. uh-huh. vraiment <laughs> doomaram bu nekk war ndax ku nekk daal ku uh-huh. nekk ci doomaarama am nga am nga euh, salu ñaaw loo xam ni boo soñee kenn du ko gis waaw kon nag euh, ni ni nga ko amee rek nan nga war a fexe ba koo gis si moom lu ñaaw nga yor ko sax da nga ko war a génn sa téléphone mm-hmm. waaw bu boo gisee sax war nga ko suturaal ndax doomu aadama bu nekk rek ni la weere ni nga weer nit bu la ne weere rek nga weeru effectivement kon nag ku nekk war na war naa moytu loolu vraiment lu lu day waar lu nit ñëpp war a war a moytu mhm. waaw jeunes yi moom vraiment loolu moom euh, bëri na ci ñoom lool lool lool waaye nag euh, du éducation daal waaw loolu nag ñëpp am na ci part de responsabilité muy école yi muy sëriñ daara yi muy muy famille yi muy parents yi ñëpp ci am euh, responsabilité mhm. Amadou loolu doy waar la jërëjëf sëñ Bachirou mhm. euh, bu ko defee euh, alaaji Maodo Ndione ñu wéyali mhm. waxtaan bi rek te xam naa ne gars yi nam nañu lool sëñ Mouhamed mu daal di continuer ci sëñ Mouhamed yaa ngi woon Gabon mu mel ni sànq yaa ngi doon wax